Abdoulahat Sène mii. Hmm. Euh, doomam moo koy wër. Hmm. waaw doomam. Hmm. moo koy wër ñu déglu doom ji li mu expliqué. ayca. li mu fi tax njaw damay wut sam pap parce que bi ma juddoo ba léegi mosuma xam ay mbokkoom xaw ma ko xaw ma kenn ci xaw ma fu ma féeti sax xaw ma fu ma bokk loolu moo tax ma ma ñëw fi tey pour xam fu mu dëkk. maa ngi tudd Fatou Diatta maa ngi juddoo en 86 moom 87 mu dem. foo juddoo Ziguinchor. laa juddoo. sa sama yaay mu ngi tudd Adet Diatta. Ah, sa papa année 86 87 la nekkoon Ziguinchor. dafa takkoon sa yaay wala takk ko woon. ko woon parce que man sa amoon naa mag mais sama mag dafa gaañu man kese maa des mais boobu ba léegi maa ngi koy fu ne jaar dugg naa fa moom moo ko ko kooku dafa gaañu. Ah, d'accord ma dafa amoon sa yaay ñaari doom. waaw mais takku ko woon. waa te boobu ba léegi maa ngi ne di wër fu ne dugg naa fa amul fu ñu ma dëkkuloon amul fu tam fu ma dëkkut fanaan naa ci mbedd mbir ngir condition yooyu parce que fu ma dem fu ne ñu ne waa maaxee di taxawaalu ba kooku génnee ma ci këram sama mu ngi tudd Abdoulahat Sène waaw da daan dawal Dakar euh, Casamance waaw Dakar Casamance la doon dawal léegi moom ba boobu ba mu jógee dem ba léegi man 86 laa juddu 87 mu dem parce que man xaw ma ñaata euh, des années 80 la nekk Casamance muy dawal Dakar Ziguinchor boobu léegi xaw ma xam ma fu mu ne. léegi léegi moom sa yaay ban information la wax ci moom maanaam fan la dëkk Sénégal ak wala ay yenn mbokk mi xanaa kay ko amal ñaari doom war nga am information ci moom. man wax bi samay tante laa ko déggee ñu doon waxtaan parce que dama daan dama daan sëgg di raxas bool sama ñaar tante nekk di commentaire ku nekk di wax maanaam man li ma li ma gën a niroo sam papa li ak li ak li ku nekk di commentaire mu mel ni taa ma ne dëkk sa nopp seen euh, seen gémmiñ ba ma paree ma laaj ki mu door ma ne yow dëgg la am xamoo sa pap sa pap fii la nekkoon mais lii ak lii ak lii la mu door ma wax ne que yow sa pap mu ngi tudd Abdoulaye Sène mais waa Njaareem la mais nii la demee parce que ba nga juddoo 86 moom muy pare di jóge Casamance pour dem dës dëkkam mu bëgg ma yóbbu sa maam ne ko kii xale la te jigéen la dafa ndaw munoo ko yóbbu boo ko yóbbu dañ lay tuur nga dee boo ba léegi kenn gisatu ko. d'accord yéen ban quartier ngeen dëkkoon ci ñu ngi dëkk lew na lañ dëkkoon mais ñoom fu mu xamante ak sama yaay koñ ñu ne Moulin Rouge. Colobane bu do bu Ziguinchor mu ne Rouge waaw. 87 ba léegi xam nga sama lu mu nekk. xaw ma xaw ma ko xaw ma ay mbokkam xaw ma kenn kenn ku ma xam ci famille am loolu moo tax ma koy wër. loolu moo tax ñu daal. sama yaay ngi tudd Adet Diatta. sa papa. Abdoulahat Sène. léegi lan sa sant yàlla la ki ma moom wu ma que man ki ma déclaré ki nga te moom moo takk sama yaay kooku de jamono gi gën na àdduna sax parce que moom moom laa xamoon mais après loolu bu ma ko yégee bu ma demee sama yaay ma dem toog ma laaj ko mu ne ma doo ko mus a xam. ma ne ko Ismaël loolu moo wax ma ne moom sax xamatu ko ko fu mu ne. ma kon d' man dinaa wër bu ma wëree ba yàlla def jàmm bu ma ko xamee sala tam ma xam ne ne amu amu amu fu ma jëm amu mbokk. dañu wax ne la daal njaareem la dëkk njaareem. njaareem la dëkk mais dañ ma ne mu ngi wala njaareem wala Dakar. wër naa maa ngi nii. benn photo wala yeneen. dara dara. tur bi kese lañ ma lañ ma jox aw ma dara dara li nga am te tey jii bu ma ko jëlee comme repère dinaa ko mën a gis aw xale bi Ziguinchor la jógee ñëw fii ci rajo bi euh, daje fekk euh, waa xalaas Passepartout interviewé ko. Hmm. papaam jooju di Abdou Lahad seen moom ñaata la war moom xale bu ci waaw mag la de mag la war na am vingt ans. 86 la la judd 86. 26 ans la am quoi. Euh, jëkk papa ji dem 87 boobu la ko gëj a dégg mais xamu ci woon dara te papa ji dégg nga mu ni déclaré wu ko woon jëkkëru yaayam moo ko déclaré ci jëkkëru yaay ji gaañu na. mais ni mu def ba xam ko ñaari tantaam yi ñëwoon ci kër ga wax ñoo ko tey ñoo ko tey man man jàpp naa ñoo ko tey ñoo tey ñoo ko tey pour daal ah, trente-quatre ans la booy xel xool nag ci ci wenn wàll wi hmm? dañ koo dimbale hmm. ndax boo demee ba am fanweeri at ak ñeent hmm. ci jigéen jaatu na nga xam yenn yi xëy na dañ ko ko ñoo ko tey pour mu dégg ko peut-être gaañ ko lañ ci jublu woon mais dañ ko ko dañ koo dimbale ah mu xame ko nii moo gën te yaayam xamu ci xamatul fu fu fu papa ji ne te ñeneen ñaar lañu woon kenn ka gaañu papa ji ab chauffeur la ci sama gars yi chauffeur yi ñoom jaalo ñaar am nga gars yi chauffeur de. ay ñoom maas ñas. mais Ndiaye est-ce ko est-ce que mënuñu ko woon maanaam ku koo xam ne bi muy ne xale ba bi mu amee 34 ans histoire bi moom échappé na ko est-ce que mënuñu ko woon bàyyi noonu rek mu continuer ko noonu wala bu ñu amee lu ñu koy wax nu wax ko yaayam est-ce que ci diggante moom ak. yaayam bi ko jur. waa xam nga xam nga ku nekk aussi ak ak appréciation bi nga ciy am. Hmm. am na ñoo xamante ne ji tey bañoon koo xam ba deewaale ko. mu hmm. gën ci yow hmm. am ñoo xam ne xam gi nii daf leen di dimbale. te amaana sax xam gi nii dana fi jaare bu munta xam papam xam mbokki papam ndax xam nga ñëw na fii de déglu fi leekub diir da nga dégg ku ne la maa ko jur wala papam maa ngi moom ñoo ko papa wala nangam. léegi mu léegi mu fay mais nag problème maanaam tey li ko métti woon keroog wax ju ñaaw ji ay tàntam bis bu gisee papaam mu fay mu mu mu jeex. waaw waaw dina dina ñii dañ ko dimbale. dina feeñ incha hmm. allah. mais Cheikh Anta Diop. waaw waaw waaw correspondant RFM. Thiès waaw hmm. waaw waaw il faut ñu féliciter. Hmm. waaw waaw waaw. ndax euh, liggéey ba damay wax ne bu ñu nee nit baax na bu ko dëkkandoo yi waxee rek. mënees na koo at. dëgg la lii la cest à liggéey ba muy def ca Thiès. tax nañu boo boole ko ci ñaar fukki nit. yi nga xam ne ñoom la ñu gën a ràññee ca Thiès. Hmm. Hmm. moom nag ci liggéeyam la ay reportage yoo xam ne def na ko Cheikh Antangue ci biir centre hmm. traitement yi Cheikh Antangue fu ne nee naa la fii Dakar benn jour xëy na di liggéey si dégg coow mu dugg ci kër gi ndeke benn xale bu jigéen lañ fa doon jébbale laata bàjjen bi dugg Cheikh dugg na ba interview bi xale bi génn <laughs> ñëw ne da koy proposé journal mujj ñu ne ko fu muy jàll Cheikh lii foo koy jàll <laughs> xam nga kooko bu demee Thiès remporté fay prix dañ koy félicité rek Thiès rek de Cheikh Anta région de Thiès. Mm-hmm. ñoom ñëpp a xam Thiès Cheikh Anta mm-hmm. ñun ñu dëkk biir xam nañ ci dara. Mm-hmm. village yi gën a ndaw sax. xam nañ Cheikh Anta. donc ñu koy félicité bu baax a baax loolu moom liggéey bu am solo nekk ceeb dëkk daal di liggéey ba bañ ràññee la am na solo. en tout cas pour li la ni pour day nekk nit ku am yitte. ba pare nit ku am yëg ku fonk li muy liggéey. mës nay dem man mës nay génn di voyage mu topp ma di ma topp ba ci jumaay sëñ Cheikh gi. Euh, booy dugg. Ah, tuyawoon noonu waaw waaw ci jumaay suñu ceex gi fa la ma dabee sa ant waaw sa abaa ma ne ko waaw kooku mu ne ma man la si xante bu Cees mais dafa ma nuyu rek ma xam ni kii ko am yitte quoi waaw waaw kooku moom naan nit da am njariñ waaw nit am na njariñ loolu macha allah <laughs> yal na yàlla xeeb dool yi waaw am na njariñ yal na yàlla xeeb yal na yàlla na vidéo bu leen envoyé gis ngeen vidéo bu mu méttee mooy gerte gi waaw ak la gis nga temps yi waaw na sama mbokki baykat yi baykat yi ak sama mbokki kaw ga nañ bàyyi xel daay yi daay yaa ngi jeexal àll bi dëkk bi daay gaa fa dugg taal dëkk ba. metti su taaloon kii bi rek yem ca mais dund ga seen gerte ga dugub ja ngooñ ma. lépp na fas lépp a tàkk ba jeex tàkk. daa fa dara de tàkk tàkk. ngay hmm? déglu. auzu billaahi mina seytaani rajiim. waaye xool leen mbooloo mi lii. ñun waa Sénégal ñu leen di wax fii si Touba Kandiané la commune gent Gént gis ngeen lakk gi am fi ak ndaay moo fi jaar toroxalee ñi nii ñun néew di doole yi ñun ñi nga xam ne amuñ dara waaye nag yaar la rek la yaakaar dimbali ni dimbali leen ñi lii musiba woo xam ne kenn xamul xoolal mbooloo mi rek dëkk bi yëpp lakk na ba jeex takk dara desutut fi muy ngooñ muy gerte muy dugub lépp lakk gerte gaa ngi nii lépp lakk ñu ngi nag ñaan nag ci naamu dimbali ngir yàlla ak yonante bi sallallahu alayhi wa sallam mu wallu suñu ndaxte ñàkk am lu ñu faguroo rek moo tax sunu safara bu ñëwee si ñun rek danañu lor. xooleen ngooñ mi ma nga nee di tàkk musiba bu waar la képp kuy mbindee ñëw nga fi rek sa yaram daw na ndaxte lu métti métti métti la dimbali leen ñi dimbali leen ñi dimbali ndaxte bu nga ñi dimbali hut xanaa xamoo leen ñin saalum saalum yi ñun itam nag da ngeen war a dimbali de ndaxte ñun de ay saalum saalum leen di waaye niiw nañ doole di waaye ñun commune Gent bi dara loo xam ne ñu ngi ñu koy dimbale xamul ku lu ñu dal rek coono lay doon boole leen si saalum saalum yi saalum saalum yi sonn nañ de. liñ bayoon yëpp liñ bayoon yëpp daanaka dara génnut daal mën nañu wax ne dara génnut dëkk ba daa dajeek euh, ñu dencoon gerte yi. jaay jotaguñu woon a jaay jotaguñu woon a jaay gerte yëpp da yëpp daal indi woon nañ ko. dara mën mënutoon a génn ndax bi ñuy jéem a fay daay gi. Eh, mënuñ ci dara yu ci bari ñëwoon nañ di jàppale si waaye ñax mi dafa bari woon te am dooleen daje ngelaw li xam naa looloo tax daanaka mënuñ ca dara ñoom ñëpp ñëwoon nañ waaye biñ ñëwee it mënuñ ci dara eh, moom moom moom eh, te bi sàppoor di daataan ñëw fekk na moom ngooñ ngooñ mi sax lakk na ba jeex moom doy na waar moom daal xam naa ne moom hmm, moom yàlla def na ci sutura nag nit gaañuwu ci benn fas rek moo ci jot a dee ndax fas yeeg yëpp dañ leen a tekki gone yit ñu rawale ci rawale leen ci yeneen dëkk yi waaye moom euh, sama këru bopp sax la ca doonoon tabax sax dafa dugg lakk gi dafa dugg ci biir lakk li ci biir lépp dara dara des moom daal doy na kiimaan moom gerte yaag ngooñ maak dugub yaag yëpp a yem moom daal moom daal moom <laughs> doy na kiimaan noonu daal la demee. dégg nga mu ngi noonu sunu mbokk baykat yi dañoo sonn te feu de brousse yi sonal na leen temps yi mhm. dëkk bi am na sunu benn sëriñ bu fa nekk moo defe naa mooy wax noonu di sëriñ sëriñ Modou sëriñ Modou Moustapha Mbacke mu sëriñ Moustapha Bassirou te dëkk bii la ne mooy wax noonu daanaka moom tamit ba léppam léppam léppam tàkk ba mu ba jeex tàkk ak waa dëkk bi ku leen mën a dimbali nag te dëkk ca Saalum autorités yi ne Saalum ñi yàlla may ta teraanga te ñu may Saalum nekk Saalum. duñ fi jeex de waaw duñ fi jeex. waaw xaw euh, am na ki ki naan Rahma. Mun Ndiaye Rahma Mun Ndiaye Rahma. ñoom Moustapha Sow. Moustapha saw Ousmane Noël Dieng. waaw ak kii. Pape Euh, Baye bàyyi Ciss. Baye Ciss. Baye Ciss waaw Baye Ciss moom xam naa. Doro Doro Doro Doro Gueye. waaw ñi nga xam daal ne ak hmm. Mariama Sarr di ministre bu. ñoom ñëpp ñoom xam nga. waaw waa kër waa kër waa kër Baye Niass yi li ñuy def ci social ci saalum waaw jafe na nit dab leen. waaw ñoom ñëpp ñoom ñoom it interpellé leen. ñëpp rek jàpp ci ñoom ñëpp rek sori nga sax kay sori nga. waaw ah. Nafissatou Diop Nafissatou waaw waaw sunu yaay dem dimbale leen waaw waaw maître Nafissatou Diop waaw village bi daal soxla nañu ndimbal mhm. ay yére dañ leen dimbali ak dund léegi nag man xam nga sama problème mooy xaw ma sama gëm yàlla la xaw ma sama gàtt xel mhm. mais yu mel nii su ma daloon ak cant laa koy def man moo koy sant yàlla waaw ñu ngi sant yàlla moom suuf si waaw mhm. jox la kàttanu nga bay jox la gerte koo bay nga bay ko déqi ko naaf ko bàcci ko bees ko dajale ko sol ko ci saako mu lakk dara ump ci yàlla. gerte ga leen la tege dege la damu. waaw nañ ko sant yàlla. waaw mm. lu mu def rek dafa gën ñaata baykat ñoo fi bay seen gerte téye ko ne duñ ko jaay dañuy xaar chinois yi. dëgg la de. Mm-hmm. ah. Mm, àdduna ngi noonu <laughs> man a àdduna ngi noonu. ñi leen war a dimbal nañ leen dimbale. Mm-hmm. parce que li Assane Gueye di wax El Hadj Assane. Mm-hmm. ki xiif moom raxasul lekk rek lay gis. waaw ah, ñii nii lakkale seen lépp jeex ku leen ne jàpp leen kii rek la gis. ak état état état wu Sénégal. dañoo jaaxle ne leen ne leen état jàppale. Njaay ku jaaxle Njaay ku jaaxle boo ko nee dina sant yàlla ak. Njaay ku jaaxle. kaay sant yàlla ak yooyu yëpp dina ko def. mais ku jaaxle il faut nga dimbali ko ba noppi. Uh-huh. doog ko mën a wax yii nii. waaw ah, moom laa la wax. ma ko moom laa la wax. waaw ne leen jàppale bu baax bàyyi siis ak. Hmm, Njaay Rahma ak ñëpp daal waa ji de waa ji de bi mu jógee vingtième étage di daan. waaw ah. yuuxuy sama dañu ànd yow. tuddal yàlla tuddal yàlla. waaw doon laaj ñu ci suuf moom nu mu tudd. <laughs> jaaxle yow dafa ànd ak ay da nga koy dimbali ba noppi après ah, soo ah, ah, ko dama <laughs> tuddal yàlla ma naan leen nu mu tudd waaw moom nu mu tudd eh, te yow nga ni euh, ban li fu mu amee nga ni ay Canari ay boy seen ay ak Moustapha Niass président assemblée dëgg la <laughs> dëgg la président assemblée nationale ci foo ay waay ban ci foo politique yi nag ah waaw loolu lay jël la dégg nañ non non dama ko fàtte woon dama ko fàtte woon ku ne di woote rek deuxième personnalité de l'état Doro dëkk Sall moo Ndiaye Rahma Moustapha Sow baax na bàyyi siis ñen leen dañoo leen a war a dimbali hmm. yàlla su la joxee lu ëpp da nga laan séddale loo ëppale ëppale na kay ku ñu ëppale ëpp na ku denc lépp milliard bu ñu dee ñoom sax duñu ay waa Kaolack ak yooyu ñoom Abdou Aziz Ndiaye yi ñoom Ilimane Lam yi mën nañ cee jàpp ñoom ay nit ñu baax la ñoom ci lu baax lañ nekk nit ñëpp jàpp daal nit ñëpp jàpp am na ba <laughs> ah, paas amoo paas mu jël la may la paas yu baale la ku maanu la sama yoon nekku ci waaye ah, waajaa nga faas waa nga nii yaa ngi koy wër mënoo ko gis ah bis na ñu toog fii nga ne da bëgg a fay fay bor ndax léegi de nekkee xalal boobu reporter bu ndongo amoon paas la daan wax nga ko nañ toj yax bi waaw damaa demoon reportage waaw làmb waaw que ñoom Yékini waaw Yékini Yékini daan mhm. coow la fëllaxoo sama paasu retour réer <coughs> oxygène laa waroon ñibbi kati Diop kati Diop mhm. moo ma aaloon junni cinq mille mayu ma ko nag daf ma ko aal boobu ba léegi maa ngi koy wër pour fay ko ko mhm. mënuma koo gis kate yi fi voilà léegi nag comme comme commencé nga wax ji naa ko yegg nee na moom sequl ak moom sax ay fay bor da ko bëgg a gis xam naa ne bu ko gisee. Mm-hmm. Euh, macha allah. waaw euh, xam nga nit ku am teraanga. moom <laughs> xam teraanga. li muy wax ni la allah déet ko may. Mm-hmm. mais fi mu nii da nga ko bëgg a gis. ñëpp meloon ni yow de def nit ku baax la yëf yi nit ku baax la. a de allah. il Canari Canari dafa am ay sénégalais yu jëloon fii gaal. dem doon dem Espagne fa bloqué il Canari dañ faa yàgg nag mm-hmm. déglu li ñu wax. waaw dañoo ne fii ci il bi Grande Canarie fi lañ nekk jóge woon Sénégal ñëw fi mais depuis bi ñu fi ñëwee boobu ba léegi daal xool nañ ne nationalité yëpp seeni gouvernement ñu ngi leen di dagal ay laissez-passer di leen génne ñuy dem waaye ñun gis nañ ne ñun doomu sénégalais yi ñi nga xamante ne ñun ñoo fi nekk boobu ba léegi mënuñoo dem bu ñu laajee waa Croix-Rouge bi ñun lan moo suñu problème pour mënuñoo jàll ci ville bi ak Grande Espagne dañ ñuy naan loolu seen problème de gouvernement la te ñun loolu jaaxal nañu trop trop trop trop trop bëggoon nañu ku ñu ci dimbale taxawul ñu ci avant ñu bii message pour mu mën a jàll loolu ñun buggoon nañ ku ñu jàppale ci loolu trop trop trop sëñ bi wax dëgg fa yàlla sonn nañ trop ñu ngi lekk ñu ngi naan ñu ngi tëdd fu baax waaye nag loolu indiwuñu fi ñun nag buggoon nañ nu ngeen ñu mun a jàppalee ñu jàllale boobu message pour autorités yi jot si ñu xam ne doomu sénégalais nekk ci île bi sonn nañ newul ne dañuy kaas ay droit ndax xam nañ ne jaaruñ ñu ci yoon dañoo clandestin waaye ndimbal la ñuy ñaan moo tax waaye newul na droit bu ñuy kaas waaw ñi fi nekk ñi nga xamante ne ñoom lañ fi fekk si bu ñu leen waxee dañ naan ñun amuñoo ak yéen benn problème su ngeen waxtaanee ak seen gouvernement ñun leen mën a jàppalee loolu ñun amuñ ci problème loolu seen problème de gouvernement la ñun newul na ñun ñoo leen moo tax nag ñun ndimbal kese la ñaan pour lu ñu fi jëlee man mii di wax ak yow maa ngi carte d'identité maa ngi passeport waaye sama passeport indaale wu ma sama carte d'identité laa indaale waaw maa ngi passeport maa ngi carte d'identité waaye passeport indaale wu ma sama carte d'identité laa yore ñi si des nag ku ci nekk mënu ma laa garantir li nga yor waaye ñi ma ci xam ñëpp ay sénégalais lañ ñi ma ci xam foofu ngeen nekk noonu yéen ñooñu ñëpp est-ce que ku nekk yor na këyit buy wane ne Sénégal la jógee si yéen yéen yéen cinquante personnes xalaas hmm? xale ñoom lu ñu bëgg ku leen ko dimbale. ñoom ah ñoom daal leen si seen morom yëpp état yi ñu ngi leen di jël seen i mbokk yi waaye ñoom kenn jël siwu leen nga fa sonn leen trop dañoo bëgg état Sénégal jàppale leen xaw ma xam ndax jàppale leen pour ñu dugg biir Espagne wala jàppale leen pour ñu te soo leen ñu ni waa seen état bee ñu indi nangam ak nangam mm-hmm. sa baax mi ngi noonu daal ña nga fa tàgga am nañ ay problème voilà Ndiaye jot man de baal ma man de ki dem bëgg a dellu si mm-hmm. nangu naa ñu jàppale xam nga ku ma ku ma nangul ki dem yéefee yàqu mu ne buy gisaatee day dem kooku moom jot jàppale. ah yéeme na de. nga ne. kii nga xam ne moom di ministre bi di ministre de développement communautaire Samba Ndiobène Ka. Mm-hmm. dem na foofa ca dëkk boobee pour yóbbu fa soutien wu état bi ki ma ko wax di Pape Sara Ndiaye. Euh, chef de cabinet ministre bi ci boppam moo ma jox xibaar boobu. am na solo loolu lu am solo la. am na solo loolu lu am solo la. loolu am solo la loolu ñu ngi leen ñëpp jàpp rek euh, monsieur Sambou Ndiobène. ak ministre sport tamit. waaw Matar Ba ak sondage. ak ak Laye Sow. Maodo Ngom ñaar ñoom ñëpp waa Saloum lañ donc. ñor Fatick ak Kaffrine nag. Kaolack ak yëpp Saloum la. sa waay jàpp rek na ci ñëpp jàpp. maire maire Kaffrine. Abdoulaye Wilane Abdoulaye Wilane ak Abdoulaye Sow man Wilane lu ko def sama waay. ah mais <laughs> ah, ah, dafa rafetal rek. Wilane laay ñëpp laa ko ci mës a gis. man dafa rafetal rek. Wilane non Wilane laay waaye ñëpp la waay. ma non sur ce plan là je suis d'accord moom borom jàmm la. <laughs> waaw waaye ñëpp la. fu mu gis day taxaw waxtaan ak yow. waaye sa waay ji mel ne man tamit Wilane ñaar yoon laa ko mës a gis. Ndiaye yow Macky Sall sa waay man man waaw ah, Macky de sama waay jeex na. waa te xam naa ne sa waay la. waaw kon bu ñu sa waay ji nangu ko. waaye wilaan waay sama waay sa waay ji ndama ngi ci gàcce ngi ci de. en tout cas daal ndaxte maa ngi koy waaj a bàyyi. en tout sa waay lan ma xew mbuur. mbuur déglu li xew mbuur déedéet déedéet. déglu li xew ñun ay étudiante lañ. dañu amoon benn euh, assemblée générale boo xam ne moo ngi amoon ci université virtuelle bi nekk euh, croisement Saly léegi bañ fa amee assemblée générale léegi ñu demoon nduggi ji ci ngoon gi pour war a xëy togg foofu ay añ parce que man dama bokk ci jëwriñ yi samedi la ñu demoon nduggi ji ci ngoon gi ñëw am na benn kër mbàkke mbàkke bu jàkkaarloo ak euh, université bi kër googu noonu lépp lu ñuy togg wala lu ñuy def ci université bi kër meer bi sant Mbàkke foofu la ñuy toggee léegi bi ñu demee ndugg ji ci samedi bi ba ñëw ñëw foofu galaasi jën yi indi suñ bagage yi ñu war a togg indi lépp léegi daal ne maire bi ñoo ngi dem ba suba bu subaa dinañ xëy si ñoom maire bi mu ne waaw léegi fekk ne maire bi amoon na benn jànq bu mu waxaalee loon bi mu waxaalee ak jànq bi ba pare ci bi ñun fekkee wuñ muy waxaale ak jànq bi biñ xëy see dimanche dañoo ñëw fekk fa jànq bi mu nekk jànq bu bees ñu nekk di liggéey li ñuy liggéey di liggéey li ñuy liggéey xale góor yi di dugg di génn léegi jànq bi daal di ñëw daal di wax xale góor yi ne leen yéen yéen a ngi branché seen téléphone yi ci peron bi te dugg bi ak génn bi dafa bari te man maa yore caabi néegu maire bi léegi kaay ngeen branché foofu léegi xale góori université bi ñëpp jël seen téléphone yi branché ko ci néegu maire bi mu ñëw daan ne maire bi maire mu ne ko ah mu ne ko yow de li nga def nii wóorul ndax xale góor yi ñu ngi solu kër gi ba kër gi fees dell di di di di di dugg di génn ba pare teew néeg bi tëjoo ko maire bi ne ko xale yi université bi de. lépp lu ñuy def ci université bi ci seen daayira bi fii lañ koy ñëw toggee si yàgg nañ di fi toggee te dara mosu fee manqué dara mosu fee waaye nag comme wax nga loolu ah garaawul léegi te jël bunt bi léegi mbindaanu bees mi daal di jël bunt bi daal di koy tëj daal di yore daal. ñoom yi baaxul de doo bàyyi li man maa ko dagg wala passeport. <laughs> Ah, passeport ba léegi kon day dagg affaire yi. mais fii dara dafay xew. dirib maire bi ñii ay étudiants lañu. Mhm. doon def benn réunion benn seen daayira yooyu. Mhm. léegi nag chaque jour dañuy dem ci benn maire yaay ju baax ju nekk fële ca euh, Mbour. benn soxna su Mbàkke Mbàkke fa la ñuy toggee. Mhm. léegi nag daayira bi nit ñi dañoo bari xale yu góor yi yëpp branché seen portable mu doon portable yu baree bari. léegi nag maire bi avant euh, avant bés boobu dafa waxaale woon nag benn jànq jànq bi xëy si nag premier jour boobu. ñi ñëw ci kër gi jàpp nañ jànq bi yàgg na fi. mais jour jour boobu la jànq bi xëy si jànq bi daan nii leen jël leen seen téléphone yi ngeen dugal ko ci biir néeg bi ngeen tëj ko fii ngeen ko teg nii wóorul ñëpp jël seen i téléphone dugal ci néegu maire ba saag yi saag ya def xaalis ñu yëg ko ca fenêtre ba maire bi jànq bi daal dem ni maire bi tëjal bunt bi ndax xale yu góor yi dañoo bari maire bi jox ko caabi mu tëj bunt bi nag. ak bagages yi ak bagages yi ak ah, yëpp nag waaye la ca des la la jànq bu bees boobee xëy si def. après su subaa ñu dégtal ko gaay